dimbali ñi mooy dimbali Sénégal képp ku bugg dimbali Sénégal da ngay dem foo gën a suufee nga commencé foofu ñu ñoo xam ni nga nga dimbali ñëpp ñu ngi ñaan yàlla suñu mbootaay bi depuis bu mu commencé ak léegi ñu ngi dox tonk yu baax ñu ngi defar lu baax lu ñu gis fi ci table yi ñu indi lépp ñu ngi rafetlu yooyu yooyu ci gox yi lañu liggéeyee ci dëkk yii la ñu liggéeyee képp ku ci bëgg dimbale ni ni dem fekk leen ci seen dëkk dimbali leen euh, maa ngi wax nag suñu président Renos yaram bi dafa xaw euh, sutante tuuti ñu ngi ñaanal jàmm ba ndax ñu fekkee yeneen programme yu fi yu fi ñëw mu ngi nuyu ñëpp buggoon naa ko teewee mais yàlla deful euh, dafay yaram bi dafa xaw kii tuuti waaw ñu ngi leen wax fi ngeen jóge ngeen delloo foofu ci jàmm ñu ngi ñaanal ña xam ni soo gisee yëf bi dox am na ñu ci jàpp yu mel na Jibi Thiam yu mel na madame njaay yu mel na suñu coordinateur bu baax bi mooy Samba kii ay nit ñu baax lañu ñu ngi taxaw ci liggéey bi loolu moo tax ñu ngi ñuy maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ñëpp ñu delloo ci seen kër ci jàmm ak salaam. dañ leen ci sant bu baax di leen gërëm président wax na ko mi ngi ñaanal ñëpp dal ci jàmm kenn dal li nekk ci jàmm te kenn ku ne boo delloo fekk sa waa kër ci jàmm. Euh, du ñu tàmbali kàddu gi te nuyu wunu ñi nga xam ni suñuy invité lañu ci turu président comme ni mu ko waxee yaramam dafa sutaate waaye vice président ngi fi looloo tax nga nekk. ba tey président ngi nii taxaw ñu ngi nuyu bu baax a baax euh, monsieur Gassama mi nga xam ne ni mu ko waxee noonu la nekkee parandoo la bu sax parandoo buy dëggal la aussi jiite développement communautaire te lépp loo ko wax incha allah dafa mel ni hiérarchie bi yépp koy yëg euh, ñu ngi koy sant bu baax di ko gën a tàllal loxo nii lu mel nii nu ñëw di ko ci woo dafa war na ñun dañoo bëgg a teg baaraam rek ci ñi ni gunge li ñuy def ak ni nu jara jàppale Gassama ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, ñu ngi sant di gërëm directeur u apprentissage ay baati tubaab la waaye képp kuy wax ni xëyum ndaw ñi jàppal ni kuy xëykat daa am man-man ku mënul dara bu sàggantul du xëy kiy jàppale ndaw ngir mu man kooku moo moo ñëw tey toog nii mooy directeur de l'apprentissage dafa bokk nag ci ministère ku jar a tàccu la ku baax la ndax lim ko yëgee gàtt na waaye terewul ak li muy xat-xat-xat ñëw na bokk ci ñi fekke si te ñun jox nañ ko jëmm jë jox nañ ko aussi wàccuwaay ba ñu ngi leen di sant bu baax a baax monsieur Kane également di sant waa Eclisio éclusion itam sunu nattango la ñuy nekk fii ci Thiès euh, bari na ñoo xam ni jaar nañ fii yaatal nañu ci biir région bi ak ci biir réew mi te lépp li leen tax a jóg mooy yokkute doomu aadama kon ñu leen sant bu baax a baax di leen gërëm ngeen jàpp nag ni euh, ñeneen ñi seen mbir la daanaka man dañ may jox njukkal ma leen koy delloo ñun ñoo ngi tudd Reynolds ñeneen ñi tudd Renkaas ñaari baat yooyu rek laa leen di bëgg a jox gàttal fi ndax Reynolds dafa nekk réseau national des organisations de lutte contre la soudure et l'endettement kuréel yi nga xam ni ñooy xeex njëg ak bor yu sëxin yi ci kër yi ci gox yi kuréel yooyu nga xam ni action de carême mooy seen parando ñu ànd ak moom di ko def ñooñu ñoo composé Reynolds nekk fukki kuréel ak juróom nekk ci fukki diiwaan ak benn dajale lu bari nag waaye seen mission bu njëkk moo doon ñu fexe ba ci biir gox yi nit ñi xàmmee naka la ñuy mën a gën a ànde dooleelante bàyyente xel te lépp luy lu baax ñu bàyyeel lu ko fi ñu jëmbataat ko suuxataat ko fóot ko ba mu set génnewaat ko mu di doxalin ci dëkk yi loolu moo indi calebasse de solidarité bi ngeen di màggal tey waaye calebasse bi ñooñu bokk Reynolds du ñoom ñoo nekk membre yi Calabas ba. ay équipe technique lañ teg. action de carême jàppale leen cordination coordination dina ci ñëw ñu mën a dem ca gox ya fekk fa nit ñi waxtaan ak ñoom liggéey bu métti lañ nekkee moo tax ma leen di sant yore leen njukkal ndax ay animateur lañu ay animateur lañu yoo xam ni bu ñu ñëw ci dëkk kat yoraale benn dërëm làmmiñ lañu yor akub yar ak i teggin di woon nit ñi ànd ak ñoom ci waxtaan waxtaan ba nga xam fi nga toll ak fi nga bëgg a yóbbu sa bopp ëllëg ñu tuddee woon ko auto promotion ñu ngi leen di sant Awa xam na ni liggéey bi metti na waaye nag liggéey boobu tey moo jur Renkaas gii taxaw Renkaas tey ay nangami junniy nit la jigéen ñi ëpp ci mu dajale nangami million ci alal mu ne ci gox yi di ci liggéey takat amul intérêt lim fi jëlee wala mu fiy fekk loola am na neneen lu mu tuddoon lu ci ëpp ñu ngi koy tuddee microfinance ci tubaab waaye daal bor la boo xam bii da fay bo bërëb la boo xam ne nga fay bokk di fa mën a denc di fa mën a àbb waaye booy dellu si am na loo ciy teg bu dee kalabaas ak ren kaas ak renol si li muy gunge amul tona boobu sunu mbir ñoo ko moom sunu alal la wax ngeen ko sànq bi ñuy wër sutura dong ko lal sutura dong ko tax a jóg loolu mooy benn bi ñaareel bi mu ni déedéet du ma yem rek ci loolu de kenn ku ci ne yaa ngi dëkk ci gox kenn ku ci nekk yaa ngi am ay ay ay ay njiit njiitu aada njiitu diine ak cosaan waaye terewul ni li ngay def kat man bëgg naa siiwal ba njiit yooyu yëg ko comme nii gasama ni yàgg naa ñëw ci seen ndaje ndax yéen a may woo loolu lañ bëgg waa Renkaas fu ñu taxaw ñun waa ñu ni ah njiit li fi ne day dem leen seeti ko jox ko wàcc wàccuwaayam te di ko laaj li ngeen ko war a laaj ndax ku la xamul du la mën a dimbali men mën na laa jox sax lu gënul ci yow donc di ko maanaam béréb boo yoon aw yoon daal bu ko gisee muy dox muy mu mu leer xamal ni tànkee fay jaar fréquent na ma ngi fay jaar ay tànk fay jaar di dem ak dikk loolu laa bëgg rek diggante bi am léegi nag Reynolds da koo def mission def ni man daal fu ma fi dem muy Thiès muy Kaolack muy mbuur muy Ndar fu ci nekk dana fa sunu calebasse suñu journée yi waaye dañuy wax ña nekkal buur ña nekkal diine ñun li ñuy def nu mu def ak diine nu ko waa làbbe déggee nu ko waa waa waa waa jàkka ji déggee nu ko keneen déggee yéen ñiy jiite réew mi nga xam ne tey ndawi buur na leen mën a tudde wala nguur gi ngeen nekk nu ngeen ko déggee ak nu ngeen nu war a jàppale waaye daal xam leen ngeen xàmmee ko ni ñun nit ñu néew doole lanu su soo nu gisee ñu jekk nii rafet jàpp leen ni sunu jàppalante dong ko indi jàppalante dong moo waaye du leneen lu dul kenn ku ci ne am pas-pas leget gi deen leen ko wan ñoom niñ koy defee mais da ngay gis ni tey yokkute gu wér la ba ñun dañ koo tuddee base u économie sociale et solidaire moo tax it dem nan fa waxtaan ak waa kër ga ministère bi ñu waral na ñëw fii mais tey day nekk bis bu xat boo xam ne bii le 27 décembre la bari ay ay ndaje yu am fële yoo xam ni njiitu réew mi moo ko woote ba tax na ñoom jotug ñëw fii yéen ñi ñëw gus néew sax daanaka ñëwal ngeen ñëpp ndax li ñuy wax incha allah dinañ ko wax mu leer ba ngeen man koo défendre feneen. kilifa yi fi toog. di leen jaajëfal ñoom ñëpp nag surtout monsieur Souleymane Kane mi nga xam ne barki démb ba léegi maa ngi koy sonal mais def na tout xam na te bu fi jógee dafa war a dem ba Tamba mais def na tout pour ñëw teew si fi di remercier monsieur <coughs> le responsable le représentant du gouverneur di remercier la coordination <coughs> nationale d'ADC di remercier tamit monsieur le directeur de <coughs> du développement communautaire di remercier ñëpp daal bàyyiwuma kenn di leen xamal ne jigéen ñëpp kontaan nañ ci calebasse de solidarité bi nga xam ne moom moo tax tey ñu ne ñuy wax waxi Rencas te ñi leen ci jàppale boor leen ci mooy ADC ki ko fi représenté mooy Agribio Service ki ko jiite mooy monsieur Djibril Thiam ak ñi mooy liggéeyandool ñëpp kenn amul seen pay yàlla moo am pay yàlla leen yàlla fay di remercier tamit waa Reynolds surtout pas bàcc mu monsieur mbay mi nga xam ne moo tax journée bi vraiment Rencas mën ko réussir ak bi ko waa ADK waa Këri Kaw waa Taset ci wetu Awa Kayre ñu jàpp ci war vraiment ba bés bi réussir boo gisee na xaalis bi yëpp ñuy wax ne am nañ fi cinq cent millions et quelques mais du xaalis boo xam ne dañ ko denc ci coffre-fort du xaalis boo xam ne dañ ko denc ci banque xaalis baa ngi ci suñu biir produit yi ngeen gis ñu exposé ko fi ci xaalis boobu la ku ci am soxlay faj sa doom ci xaalis boobu lañ lay jox ku ci bëgg sa doom jàng ci xaalis boobu lañ lay jox ku ci bëgg sa ecole sa sa doom faju ci xaalis boobu lañ lay jox ku ci bëgg fande it ci loolu la ñuy dindi jox la nga faj sa sa sa njaboot ju lekk ba suur <coughs> boo amee nga daw nga delloo <coughs> te boo koy delloo doo ci teg dërëm lañ la joxoon loolu ngay delloo te sutura la <coughs> loolu nag defe naa ne calebasse rek moo ko mën a defal nit fii ci Sénégal keneen amu ko te xaalis bi ñuy dégg na ñu ngi koy jox autorité yi ñu koy wàccee ci femmes yi defe naa ne buñ ko defee ci kalabaas te Calebasse ñëpp a xamante ndax wax nañ leen ne onze régions la defe naa ne dina àgg ci ñi nga xam ne ñoo ko yelloo du am fenn fu mu can di leen jaajëfalati nag merci beaucoup yéen ñëpp ci jaa di leen masawu coono. donc Léon merci beaucoup et je pense que lii dina tax sax ñu samp yeneen jéego pour collaborer ak yéen ci yeneen gox yi ñuy bokk di liggéey maa ngi nuyu bu baax aussi monsieur Gassama wax na ko Gassama. éditions yi ñu def yëpp ñëw na ci teew tey mi ngi ñëw teewal fi gouverneur waaye ñaari tànk la ñëwee benn bi gouverneur la benn pour moom nga sama merci beaucoup pour sa déplacement maa ngi nuyu bu baax aussi directeur ENSA professeur Diédhiou mu ngi ne le toog professeur université la mu xëy ñëw toog ak ñun parce que professeur yaakaar naa ne moo tey yaa ngoon ca classe bac yi mais da ko dagg ñëw donc merci beaucoup Diédhiou pour déplacement bi professeur merci beaucoup pour ça maa ngi nuyu bu baax aussi assan Gueye bu Agricole Afrique su ma naatangoo la mais mënoon na wax ne Yacine demal rek ak jigéen ñi waaye moom ñëw na donc assan merci beaucoup donc ci suma xarit la aussi ci TV bés yi maa ngi nuyu aussi nag Reynolds seen secrétaire exécutif ak seen vice président Samba mbay comme ni koy Papis di waxee Samba mbay nañu ko tàcc Samba Mbaye dafa nekk mag moo xam ne bi mu nekkee ci programme ba léegi lu ci dox moom la mu ngi ñuy xelal buñ ko wooyee mu ñëw bu ñu amee soxla mu jóg ñun ñoo ko fi liggéey ba mu dem ci àll bi sax feebar fa mais loolu li muy wane rek mooy que UGPM ba mu nekk li kii doon wax léegi dëgg la mooy ku bàyyi xel ay mbokkam ki dëkkandooram Samba Mbaye merci beaucoup yàlla na yàlla fay yéene bi ak Samba bi nga àndal ak doyen Hadi waaye nag li jiin njaag yéen yeneen njaag mi waaw présidente yaakaar naa si discours bu neex bii man dama war na ma Marème Ndiaye rek ñu toog di tëgg rek ba ngoon jot bu ko defee ñu xam ne li ñu war a wax wax nga ko yow président ñu ngi lay nuyu bu baax présidente di nuyu waa conseil d'administration bu RENCAS fàttewuñu bépp membre boo xam ne mu ngi bokk ci RENCAS yéen ñi fi teew président wax na ko ndax juróom fukk ak ñaari junni nit ñoo bokk ci réseau bi maanaam tey boo jëlee Sénégal dix pour cent yi ñun la kon nañ koy bàyyi xel kon nag ñu ngi peser ci réew mi dara kon moo tax monsieur Kane kon ni ko Samba mbay waxee yàgg Gassama vous êtes nos ambassadeurs auprès des ministre pour le faire comprendre ce some nous sommes en de faire pour aider les familles à sortir de la situation de pauvreté des démunis parce que maa ngi madame Ndiaye dañu mës a dem benn dëkk ñuy nettali benn mbir benn animatrice la xam naa dama tudd turam dafa fayeeku weer jël xaalis dugal ci poos bi au lieu que mu dem këram mu dem animé ji ba mu demee di animé di fekk présidente bi toog mu ne ko présidente man maa ñëw ci réunion pour ñu anime mu ne ko waa baax nañ dem kër ga ñu def réunion mu ànd ak moom dem toog ci kër ga femme baa ngi jël ndox mi teg def ko ci kaw safara si waaye toggul dara di teg di teg di teg muy baax di teg di baax animateur ni ko ayoo yàkkal lii ma reer dem ñibbi mu xëcc ko ba si pegg bi ne ko boo gisee waxuma la dara damaa bëgg xale yi nelaw comme saa amul lu ma togg reer tey animatrice ba jëlam fayekoon ne ko jëbb jox ko ko ak i jooyam dem ñibbi li muy wane mooy que ne suñu dëkk bi loo am am am am am am na ñoo xam ne tey ñu situation yu jafe-jafe ñooñu seeni problème mënuñoo nekk ci mbedd mi di ko wax parce que nag taxu ci mbedd amoo dépense moom neexut a wax waaye nag calebasse bi dafa ñëw pour jàppale ko ci sutura pour que situation rek donc loolu moo tax a jóg calebasse jafe-jafe yu ndaw yi jafe-jafe yu mag yi jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi sonal suñu population yi moo tax calebasse yi toog pour pour ça tey jot naa message yu suñu directeur mi ngi leen di nuyu euh, Berne mi ngi leen di nuyu Marcus aussi mi ngi leen di nuyu Vreni Jean Richard am naa ñu bëri xam nañ ko fi aussi mi ngi leen di nuyu barki démboo Ndiaye la fi jógee tey nag ñun bu ngeen seetloo action de carême ñu ngi liggéey ci fukki réew ak ñeent ci àddina bi on est dans quatorze pays dans le monde ci Afrique nekk nañ ci presque ci juróomi pays mais li ñu tax a jóg rek mooy xeex ndóol ak njëgg ak bor loolu moo ñu tax a jóg parce que su fekkee ne nit ki mën nga am kër gu rafet amoo lekk gu doy kër gi du la jariñ dara waaye nag bu sa biir feesee même boo fanaanee ci mbedd mi tane na parce que sa dignité di nga ko doo donc ñun loolu moo tax ñu liggéey ci Sénégal calebasse yi nag pour fàttali rek ñu ngi ko commencé 2005 bi ñu koy commencé benn calebasse dañ commencé woon ba ñu fa dajalee matul ñaar fukki dërëm parce que booba dërëm dërëm yi moo amoon waaye ñu sant Sarr duñ nangoo joxe dañuy xaar ba kenn joxe ñu doog a joxe ay benn dërëm lañu joxe ak ñaar dërëm mais tey présidente wax nañ ko dem nañ ba am junni ak juróom-ñetti téeméeri calebasses solidarité Sénégal te loolu dafay wane ne mbir boo ca nekkee bu baaxee xamal ne tôt ou tard dina jëm ci kanam loolu vraiment ñu ngi leen ci remercier di leen féliciter bu baax a baax ci liggéey boobu tey suñu programme action de carême sur Sénégal. juróom-ñetti fukki nit ak juróom-ñaar ñoo ciy liggéey vingt 87 personnes travaillent dans le programme Sudi endettement muy góor di jigéen di animateur animatrice ay chargé programme coordinateur ak comptable ñëpp gardien ba ci femme de ménage ci lañ bokk parce que kenn xeebu ñu kenn ci suñuy liggéey li ko dale ci directeur ba ci suuf ñëpp a ci suñu gis-gis li may mujjee rek mooy euh, liggéey yomb na waaye nag yem ca la nga doon liggéey ba yàgg ca moo jafe tey ku nekk bëgg na liggéey ak yéen ku nekk rek bëgg na leen ànd ak yéen li ma dem jaay la waa ji léegi ku nekk leen bëgg a ngoro waaye seen ngoro gi na leer bu leen yëy goro ga guru gu lax bu leen yëy màngal te tàngal ju toj jël leen lu baax ngeen ànd ak moom ngeen bàyyi xel ci ak accaparement yi mën a am ci seen kalabaas yi parce que nit bu ñëwee def ci calebasse benn xaalis bu baree bari bu ngeen deful ndànk deful ko pour yéen intérêt la ko defee te bés bu ngeen bàyyee li tax ngeen samp calebasse bi keroog calebasse yi tas réseau Rencas aussi keroog bu bàyyee li ko tax a jóg réseau ba tas na donc ngeen bàyyi xel bu baax ci fi ngeen toll tey parce que ba muy jafe yéen la woon waaye ku nekk bëgg naa bokk tey ku nekk bëgg naa nekk membre ngeen bàyyi si xel bu baax a baax ci ñi nga xam ne ñi ngi leen di bëgg accaparer wu mooy féliciter encore une fois Renkas ak Reynolds ci organisation événement bi parce que vraiment Papa ci félicitation yow ak ñi la àndal présidente félicitation mais aussi maa ngi féliciter sama waa kër parce que nekkuma fi woon dama tukki woon waaye seen loxo dugg na ci leer na ma madame Ndiaye fay Faye Ababacar ñëpp daal yaakaar naa laal nañ ci donc loolu aussi ñu ngi leen ci féliciter bu baax a baax di féliciter ADK comme ni nga ko waxee Pape Badji parce que togg yombul ngeen ñëw toggal ñu pour que ñu lekk ñu jógee taset aussi loolu aussi ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax li may terminer mooy wax leen ne tey dañuy doog a dem mais incha allah tey Sénégal yi ñu ci def at mu nekk 600 millions de francs CFA moom yor budget ñun ñooy programme bi gën a baax ci action de carême 6. boo demee ci fukki programme ak ñeent yi programme bi gën programme mu Sénégal mais loolu du man du madame Ndiaye du madame Faye du Babacar yéen ñi nekk ci àll bi la Awa Kayta ma nekk ci àll bi animé Oumar Dem ma nekk ci UJAK Anta ma nekk fa ADK yéen ñi nga xam yéen a nekk ci base bi animé équipe technique yi ñu ngi leen di félicité di leen gërëm di leen wax ne. On a bien vu l'engagement que vous avez dans ce programme-là. Parce que sans les équipes techniques, le programme est mort. Sans les équipes techniques, zéro résultat. Mais aussi sans les équipes techniques aussi, même nous, on va être renvoyés. Donc, félicitations à toutes les équipes techniques pour votre engagement et votre titre pour ça. Donc, merci beaucoup encore une fois. Mais ni may tëjee mooy damay jox madame Ndiaye mu tëj ko moom. parce que mooy wax ñaari baat au moins tëjee leen ko mais merci beaucoup à tout le monde ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax